bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci benn baat boo xam ne ba ko nit waxee la ko suñu boroom ne déedéet muy baatub ñépp a yam ñépp a yam yàlla daal moo ko sañoon a wax moom mi xam lépp moom mi xam lu ne fam tàmbalee ak fam yam ak ña ci bokk ak ña ci bokkul mi ngi wax ci alquran ne laysu sawaa yemuñu de mag ñi ba ñu koy jàngale dañu ne ku ne ñëpp a yam ñee di ñëw ñëpp a tolloo njool maa la neexul ñële di ñëw ñëpp a tolloo ku ko wax rek njool maa la neexul nee na am na ci gaañi ñoo xam ne kenn wërta wax ne ñoog ñëpp a yam ndax dañuy liggéey ci bëccëg bi di jaamu yàlla ci guddi kon bis bi lépp nekkuñ ko ci neen rek dañuy liggéey bëccëg di jaamu yàlla guddi am na ay téere yuy leeral li alxuraan di wax dañoo tudd sax ay tur ne ñoo ñoo ko taxoon di wax tudd nañ ku ñuy wax abdullah ibn salaam ak saalabata ak i bokkam ak ñamel ni ñoom lu gudd la waaye ñim wax ne fu ñu nekk dañuy liggéey ci bëccëg bi di jaamu yàlla guddi gi daf leen wutal ay màndarga màndarga ya ba ca jiitu mooy daf ne ñu am ak gëm yàlla lañ ak wóolu yàlla ci lépp gëm ne tey jii bu jagee ëllëg jag loolu ci ñoom lay yam waaye ñu fas yéene bu ñuy dem ëllëg it bu ñu xoolee gis ñu àndal ñu bari lay tax loola mën a am nag mooy saa bu ñu waree wax lu baax wax ko suñu waree tere tere wax lu baax mooy digle mu mel ne digle ak tere soo leen dendalee ñoom ñaar boole seen ñaari baat yi néeg bi ñuy dugg bu dee koo xam ne sañ nga ci moom moo tudd laa biire bu dee koo xam ne sañaloo ko ko nag nga xam ne moom dalaa may tuuti ci boppam moo tudd waar waar ko ku boole yaar yépp nag waar la tudd nga xam ne la nga koy wax da ngay nekk doo ko wax te jotagul loo wax te jotagul amul njariñ waaye boo néegee ba mu jàll nga soog a wax it amatut njariñ kon buñ jot rek defal la nga ca war a def waar nag ak laabiire yàlla dana tànn ñim doon seenub liggéey doonte mooy tànn lépp waaye dana tànn ci biir doomu aadama yi ñoo xam ne ñoom loola mooy seen liggéey loolu la leen sant seen dund gépp ci loolu lay nekk am na ñu fi jot jaar ba jàll bu yàgg ñu di ñu ko nettali ay ambiya ak ay mursaloon ak saalixoon ak saalixoon toppata saalixoon yi nag moom la ñuy am ci nit ñi ba loola doon seen liggéey nit ñi leen koy jox ak nu ñu leen ko mën a joxe yàlla mooy tànn ay yonentam yónni leen ci nit ñi seen dara nekku ci seen yoon néewu ca dañoo xëy xëy rek fekk waajaloon na leen ne leen demal ne leen yàlla moo leen yónni duñ ca am ak tànn bu ñuy jàng sax seeni melokaan danañ ca wax ne foo ko fekk ba mu doonee ndaw ba ni mu doonee mag waxkatub dëgg lay doon ku wóor lay doon du wor du wuruj waaye bis bu ko yàlla yónnee ba ba muy faatu la ko yàlla na demal wax ko du ca yokk du ca wàññi dara donte dafa dafa yar ak dundam waaye ñi nga xam ne it dañoo fee nekk seen gannaaw te nit ñi jox leen lañ yor it buñ ko xamee buñ ko xamut taxawaay bu mel noonee la ñuy taxaw yàlla nañ ko xam nag aaya ba mooy laysu sawaan min ahli alkitaabi ummatun qaa'ima yatluuna ayati llahi ana alleyli wa hum yasjuduun yuminuuna billahi walyawmi alaxiri wa yamuruuna bilmacruf wa yanhawna an almunkari wa yusaaricuuna fi alxayraati wa ulaika min alsaalixin wa ma yafcalu min xayrin falan yukfaruuh bi ma ne yamuru bilmacruf wa ma yafcalu laay wax bu mu noon wa yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna an almunkari wa yusaaluuna wa ma yafaalu min xayrin falan tukfaru wa ma yafaalu min xayrin falan yukfaru ñooy ànd wa ma tafaalu min xayrin falan tukfaru yépp mën a am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku nit ñi tànn ak nuñ ko mën a tànne jurut muy sori manis naa tàmbalee ci nit ak kër gam dëkk te yilif ko rek moo tànn ña fay ñëw waaye ñoom it ñoo ko tànn ci ne di nga ñëwee bëgg maa tànn it tànn naa la ci ñi ma doon bëgg ñoom ñëpp yaa ma ci doy su boobaa am na lu ko war ca ñoom bu fekkee day wax te wax jotagul su yàggee day tànqal nit ñi waaye su nekkee ba wax jàll it bu waxee dutu am njëriñ kenn dutu ko def dina li nekkatul actualité waaye fa saasa lu jot rek na ko daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen xam ne ku digleetut tereetut kenn toppandoo ko ca keneen topp ko ca keneen topp ko ca su yaatoo rek xam leen ne mbugalum suñu borom mi ngi ñuy yoot te mbugalum suñu borom moom mën a yoot neex naa xam ndax talal ay yoxo di ñaan yàlla day mel yàlla da ko du dégg danaan teg la ko waral mooy daa am lu manqué ku yoru téléphone neex naa misaal ku yoru téléphone lu téléphone ba kawe kawe ak njëg muy xoy xoy nii kenn ku ne xam na ne bu ca mën a wooteegun te defu ca benn piis def ca piis it taxut mu mën a woote day fekk mu am sawara bu ca nekk ba doj loolu lépp taxut mu mën a woote waaye day am ku mu bëgg a woo mandarga miy def door laa mën a jot muy ay numéro yooyu yëpp daje woote mën a am ak wax mu ton su ko defee nag ku war ne déet ne pat wala mu war ne waaw ne pat mam yàgg ba yàgg ku ne ne naa xaar xaar nañ xaar diw nañ xaar diw bu yàggee nee na mbugalum suñu borom mi ñuy nekk yàlla nañu ci yàlla musal am gu wax bu wax jotee nag am solo gannaaw moo doonoon li yonent yépp doon liggéeyee ak ñu topp seen gannaaw ki nga xam ne moom la aju ci aw loosam yàlla na ko xam su ko xamee dana noppalu noppal ñi nga xam ne ñoom la ko siqal tudd na léegi boroom kër waaye bu ci jógee day dem ci kii nga xam ne moo jiite quartier bi am na lu ko ca war bu jógee ci ki yore quartier bi am na lu ko ca war kii yorof kii yilif village bi dëkk bu ndaw bi léegi dañuy boole dëkk yu bari tuddee ko ab commune kooku it am na warugar ñii yilifante ba àgg ci ki nga xam ne nee na ñeey moo yilif ñëpp gannaaw yàlla nee na ñeey moo yilif ñëpp gannaaw yàlla mu am yaari wet am na wet goo xam ne daa am kuñ cay déglu am geneen wet goo xam ne keneen lañ cay déglu waaye kenn ku nekk buñ ko dee déglu ci wetam mu def la mu war a def léppay baax ma joxe ci misaal ci ne ki nga xam ne nit ñee ko tànn gannaaw bu ko yàlla tànnee waaye fam teg fam nekk daal nit ñi ci seeni yoxo la jaare dama ciy joxe misaal ci sëñ mag bi nekkoon fii ci njaareem te gannaaw bi mu ñëw Tuubaa ba ko suñu boroom yenki wale mu war a gindi nit ñi am yoon wum leen jaarale jàngal leen làggal leen ca lañ doon jàng tàggat leen ca yar leen ca booba la xam ne dugg na ngir mu jëm fu sori mu bari ay pakk waaye yàqalu ko ko xam na ko xamoon naa ne yoon yi mu jaar day bari pakk moo tax kuñ tànn bu ko xamee duutu xàmmee xojj ak seen xojj mooy ñi ko gën a jege ak ñi ko gën a sori xàmmeewu leen ku ñëw soo ko joxee ab sañ-sañ ci sa bopp mu tollal la ñëpp joxe li mu war a joxe rek lu ko ci fekk jar na ko moom moomu bi mu nekkee bi mu sañcee Mbàkke Bari su ma noppee na ci ku nekk jël wàllam tàmbalee ko ci biir këram ba ku nekk ak ñam jilif bi mu nekkee Mbàkke Bari di ko soog a sañc mille huit cent quatre-vingt-quinze am na ci wuur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi ku ñuy wax Sàmba Lawbe mu sant Njaay ngir wane ne lu wér la ku gëstu ji Sàmba Lawbe moomu mi ngi dund diggante 1847 ak 1925 bi ñu bi ñuy faatu juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett la am mi ngi faatu woon 1890 bi sëñ bu mag bi ñëwee Mbàkke Bari 1895 dem na nuyu ji ko ndax ganama demaat fa demaat fa am na ci yoonoo sax sëñ Falilu Mbakke bi muy nettali bi ñu jël si sëriñ bi tudd na ko ca ñëwum fa ñëw ak jeneen maamam ci ñu wax maam maam Faal Ñang kookee ba mu jaayanteeg sëriñ bi ba noppi ñun ñëpp dégg nañ ñu ne tubaab bi jàppoon na ko xam ngeen lu ko tubaab bi jàppe woon tuumaal ko génne ko réew mi yóbbu gabang mu fekk sëriñ bi 1896 a dafa doonoon cas contact ci sëriñ bi daa doonoon cas contact ci sëriñ loolu dong lañ ko wooye atte ko génne ko Sénégal ca 2007 1896 yóbbu ko Gabon fa sëriñ ba comme cas contact la ñoo bokk fi ñu nekk cas contact booy nay nopp fii mu nekk ba mu jaayanteeg sëriñ bi nag ba sëriñ bi ñibbi si Sénégal daa yónnee ci moom ndaw booleeg lam am nekk nuyul ma ko daa bindoon ab bataaxal yónnee ko bi ko sëriñ bi tontu nag bataaxal boobu mu ko tontu laa bëgg a jàng nii xam la ne lu mu ko jox ak lu lu mu bàyyi la yemale woon kepp lu mu ko jox ak lu mu bàyyi la dong la yemale waaye ginnaaw nee na ko dama bëgg nga waar ma dana ko waar xamut ku mu doon ki ki bëgg a waaru rek lay waar leetar baa ngi nii wa innahu ila amiri jolof sàmba lawbe noonu la ko binde min abdi mawlaahu almuktafi bima awlaa ahmad bna muhammadin almakiy bi salaamin taamin wa ikraamin aam والاعلام باني اتاني حامل هذا الكتاب من ارضك وقال لي انك تسلم علي وتطلب مني الموعظه فبذلك كتبت إليك ما لفظه اعلم بأن الدنيا لا تأتيك إلا بما تنزعه من مثلك ولا تأتي مثلك إلا بما تنزعه منك فيوما تكون معينة لك على غيرك ويوما تكون معينة لغيرك عليك وتارة تضحكك وتارة تبكيك فلا تغترر بضحكها فإنها غدارة مكار وعما قليل تعبس وتخدع وتنكر وعليك بإعانة الضعفاء والفقراء والمساكين ساكين والانكفاف عن الجور والظلم فمن ظلم ندمه ومن جار باع ولا تنس أن, أن الذي في يدك وأصبحت فيه من النعم إنما صار إليك بموت بعض من قبلك وبإخراج بعضهم وسيخرج wa sa yaxruj min yadika bi misli ma saara ilayk fajtahid fi ma yan fi ma yanfauka fi daarayn qabla xurujika min anniami wa qabla xuruji anniami mink intahat annasiha fa in qabiltaha falak wa illa fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daf ko bindu bataaxal boole ci lam am ni ma ko junje léegi defe ni ne ko nag waar ma defe ne da koy raayal gannaawam da koy ñaanal waaye gisatul lu mu ko jox wax la Suleymaan waxoon atumidduunani bi maal fama aatani allahu xayrun fama aatani allahu xayrun mimma aatakum bal antum bi hadiyatikum tafraxuun bal antum bi hadiyatikum tafraxuun mu ne ko maa ngi lay delloog nuyoo bu toll ne di nga ma yónnee wala bu ko raw ida xayitum bi taxiyatin fa xayo bi axsana minha aw rudduha bataaxal bi nag maa ngi la koy bind di ko teg ci kaw li nga ne na nga ma waar la ciy jiitu mooy na nga xam ne tudd dara ci lam ko jox de da ko ne na nga xam ne adduna moom loo ci am rek ci sa morom la ko nangoo jox la ko te it lu mu jox keneen ci yow mi la koy jëlee jox ko kooku kon dara du sax ci yow bis dana ñëw mu gane la ba nga defee ne yow doo nga am gan ndax yu bari yu nit di bëgg ci àdduna mu tase ci sa loxo waaye léegi waaye ni tuuti mu jox keneen lu ëpp li nga yor fuuf ba nga naan su ma ne su ak neexoon ma mel ni diw yaa laytanaa misla ma utiya xaaruun innahu la duu xadin azim waaye nee na ko bis dana ñëw nga bëgg lool di ree ñu la wër ñëpp di ree bis tege ca ngay jooy ñi lay gis sa ñaawaayu gañ-gañ tax ñun ñëpp ñuy jooy ñoom itam xam nañ ne lu lay yoree du caaxaan nee na ko ree gi la adduna di di dégloo léeg-léeg ngay nga ree ba taxaaj moom la ndax de ndax woorkat la nis tuuti mu ñëkkal kanamam ba doo ko ñeme te fekk mi ngi lay fexeel loolu nag sàmmaloo ba la ko bind waaye ku daan ne ci loxoom rek war na ko jël déggale ko xam ne gannaaw da ko bind lu fiy des ba faagu la ku mu ci àgg si yow yow agsi na ci yow waaye daf caa teg boo xam ne buy teel jamono la buy teel jamono wa alayka bi i'anati ad-du'afaa'i wal-fuqaraa'i wal-masaakiin wal inkifaafi an il jawri an il jawri wa zulm gannaaw boo xamee ne adduna day wor lu mu la jox ci keneen la ko jëlee lu mu jox keneen ci yow la ko jëlee tey da lay reeloo ëllëg mu jooy la wala maa ngi lay dénk ngay geesu ñi nga xam ne yaa leen tane ñi mën a ñëw wax la seen bopp ak ñi mënta ñëw wax la seen bopp ndax kat boo leen yeewee te tiimuñu dara léegi tañ ñu dagg boo leen yeewee te joxoo leen tus léegi tañ ñu dagg te ku ne xam na ne fasu dagg li muy am am doole ak li ko xam katu fas di moytu lépp nag wa dagg ko yées ndax nag moom daa yor ay bijjanti làng-làng nee na ko maa ngi lay dénk ngay geesu ñi nga xam ne yaa leen tane te bañ a jël seen ronkoñ di ko siime di ko siime sa cere ndax du rees boo ko lekkee du rees tey moytu ak tooñ waxuñu tooñ waaye jeng nii rek dang daay képp dee ko moytu ndax ku tooñ ba mu wér rëccu mi ngi koy yot bala moo faatu ëllëg waxi noppi ku dang daay ci tooñ la jëm ku dox dagg mbagg bu yàggee mbagg mais fekk mel na ma ca des bul fàtte ne lii nekk ci sa loxo nga di ko xéwloo foo jëm ñu ne nañ ko xàllal mu jàll doo taxaw fenn foo dem fa fa gën a sedd ngay toog ñam ya fa gën a baax lañ lay yekkal kuy ñëw da koy wàcc cim colam ak ay waxam ak lépp na nga xam ne bi ñu ci jot daa am koo fa wuutu rek te léegi tey ñu wut la foofee keneen nekk li na ci sa loxo lépp it na ma ko wax woon ci njëlbéen nga rek ci loxo waaye la ko jële teg ko ci sa loxo nis tuuti mu jële ko ci sa loxo teg ko ci jeneen loxoy waaj wala tansa an alladi fi yadika wa asbaxta fihi min anniami innama sara ilayka bi mawti baadi man qablaka wa bi ixraaji baadihim wa sa yaxruju min yadika bi misli ma saara ilayk kon boog tee nga ni fi ñukk yooyu yépp te seet lii am njariñ tàmbalee adduna jëm àllaaxira di fret say bagage ndax xéwal googu li nga ci toggagul mu ëpp fuuf leer ci dese fuuf gaawal bala moo gaaw gaawal def ci li nga ci war def bala moo dem dala fi wàcc ndax oto buy dem te du taxaw du la nekk buñ ko taalee ba mu tàng bañ accéléré rek gaawal yéeg ndax day jàpp ne ñëpp yéeg nañ borom daan ne ko foofu la yam soo ko defee ni ma la ko waxe mu yaag caag soo ko difut yaa ma ne woon waar ma waar naa la te man fii la teg sama tànk du ma ko teg kon boog xoolut lu ko sàmbaloo ba yët xoolut lu mu séq ak moom démb ci bokk ci lenn yàlla mi leen boole moo ko tax di wax moo tax fasaasa daf koo daal di jël kum gis na la moom bind bataaxal bii kon ku ne xam na ne nit démb ya wuti na yokk ñu bari ndax loola ku ko bindoon nit ab leetar wax ko ko dañ ko naan dalaa yàpp wala dalaa iñaane wala daa xam ki nga doon ah kay xam ki mu doon moo tax mu di ko wax xam na ni si ab jay dong la ab jay kepp ñaata lañ fi gis ñoo xam ne dañ leen daan xàllal fu leen fu ñu fekk bunt ñu ubbi ko ñu dugg ci biir ba mu yàgg ñu taxaw naan xanaa xamu leen ki taxaw ci bunt bi mu bëgg a dugg mu tegu mi ngi ne gaañ kon boobu li ci ëpp solo mooy koo xam ne li ëpp ci yow ci ñi nga yilif dañoo néew doole amuñu dara mënuñu seen bopp sa doole dëgg dëgg dëgg mooy féete ak ñoom sa doole mooy féete ak ñoom ndax ñi gën a néew doole ay ndaw a cay ëpp ndax amaguñ waxuma doole yaram waaye doole man-man waaye tey boo wootee ne kaay leen liggéeyal ma nangam ñoo see gën a bari ndax mag mënut a liggéey te nag wi yaa tax ñu defar ko nag kum doyul dara du la doy jëru sangaan lañ ko rey nee leen baax na jërëjëf suur naa ndax suñ fallu mas naa ànd ak ñam daan àndal di tukki dem ci ak kër ci Kawlax ba di fa jóge ñam àndaloon ñu sa baree bari dañoo buunoon buun dañoo diggoon tey dem rek ñu topp ko tax na bañ fay jóge ñu defee ne bu ñu fi jógee duutuñu lekk yàpp mukk ak yéen ñi àndal ñu tàmbalee fàggu lu ñuy yóbbaale ba mu ko gisee dana leen lii nag ñoo dañ ko bëggoon yóbbaale mu ne leen yéen kuy tukki ànd ko dex lu muy doyam ndox foofu la ab jullit war a nekk nit ki dafa war a doylu yaakaar yàlla te wóolu ko te xam ne fii mu nekk ñu bari bëgg na fay ñëw bu fekkee bëgg ko taxut teewut ñu yéene ko ko waaye lañ ko ci yéene mooy ndamul kese ak lu ma doon rek bu dee borom kër gi noonu la bu dee délégué quartier bi ma dudd ak chef de quartier beeg maire beeg ñëpp ba ca kaw li kaw ku ci nekk fa mu nekk ne ko fa teg yéene nañ ko ko waaye nag daa war léeg-léeg mu geesu gannaawam ba xam gaa yaa ngi ñëwam de na ko Cheikh Saliou Mbacké waxe woon su may dox it damay geesu su ma gisee ngeen xaw a yeexu dox tuuti ma taxaw nekk leen su ma leen gisut xam ne dama leen gën a gaaw dox ma wàññi ko wër leen ba gis leen ndax mënuñoo tàggoo bokk yi wax nag Sëriñ Abdou Lahad Mbacké jàngale woon na ci yaar ba yat li ma ne léegi wax ko te jotagul amul njariñ wax ko ba mu weesoo amatul njariñ kon wax ko ba ba mu jotee moo amoon njariñ tam tamit wax ju am njariñ neewoon na léeg-léeg nit wax ba àggal ñu ne ko ah li nga wax di dëgg la waaye nag laaju ñu la ko léeg-léeg mu wax ba àggal ñu ne ko li nga wax di dëgg la waaye sa yoon nekku ci wala mu wax ba àggal ñu ne ko li nga wax di lépp dëgg la waaye nag da nga ñëw yilifut kon boog ki nga xam ne daa yilif moom sëñ ta noppi daa war di dox di geesoo ba xam ñu ngi ñëwam déet suñ ñëwut mu xam la tey ñu ñëw su ko mënee faj-faj ko su ko munta faj yaakaar naa ne am na si nañ luñ munta faj du faju mukk fi may jeexale sëñ Abdou Lahad ni ñu séntu bisam am na bis waaye def lu yéeme loo xam ne kuñ ko wax loo ko dem gémmiñ dal jël dal alal jàmbur ne ko fatiix moom ci boppam xamutul fu ko alal ja jaar mu ñaanal ko comme que laata ñaanal ñu bàyyi ko daf ko ne looy def ci sama kër gi ba suma geesoo gi fu ma xool gis la fa mu ne ko moom dafa sàcc alal lekk ko muy dëgg muy dëgg goo xam ne ak dëgg la waaye ay caaxaane ko laal ndax daa bëgg ku ko wàllu rek mu ne la mu ko jëkk wax mooy da ko ne bay boo ko sàcc ci pexe de waaye man xaw mu ci mel ni pexe ba mu tiit ba jaaxle mu ñaanal koo ñaanal bañ bàyyi ko benn bis nag la xëy rek woo la ko ba mu ñëw mu ne ko demal indi la nga am lépp li nga xam ne boo faatu woon tey dañ koy doon mu dem indi lépp ne ko lii laa am mu ne ko dañ ko dawal ca bor ba kon bu bokk yi kuñ fekk ku fekk ponkal yor ab yar tiim xale fu neer ba dafa dal muy wadd waddi soo ñëwee da ngay jëkk téye yar bi ba noppi mooy dafa jëkk ñaanal waa ji bañ bàyyi ko mu sog ne waa ji fayal waaye fekk ku ñuy dóor ay yar yar yi dal fu nekk muy wadd waddi nga naan ko déedéet waxtu wi du waxtu wu yooxu waxtu wi dafa teel du waxtu wu yooxu da ngay naaj ba mu naaj te yar yaay dal buy buy naaj fu mu koy fekk yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musal seytaane te xam loonu lan mooy responsabilité bokk yi képp koo xam ne buñ ko wooyee fa takk daree di woote xelam dana am kum ne lamm ci moom kooke moo yore mbir moom la ko yàlla laaj bu ëllëgee bu ko xamee ak bu ko xamul bu doxee jëm ca ak bu doxul jëm ca rawati mu dem ba ne tey jii bu lekkut dee fexe nag ba ku dem ba bu lekkut dee xelam du ne yar ci moom bu boobaa moo jàpp ne moom mooy responsable waaye kenn tegatu ko responsable yàlla noonu yàlla mosu seytaane nekk pakkam te defal nu dégg te dimbalenu bañ xam li ñaan lu mu doon te yàlla téeñal ñu ko moom ko def ci toy yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin